man mii di wax amoon naa ñoom problème mhm. preuve yaa ngi nii fii bureau amaan la mi ngi nii gis nga mi ngi nii wàcc laa def di jibbi ñu kar ma ma yor sama jëkkër ñu giñ ma caga may jotee ñoom ba ñëw si direction bi nii sama numéro plainte baa ngi nii dañoo mujj ñaan ma bàyyi mi ngi nii samay cicatrice ba tey des na mi ngi nii sama tànk bi léegi man li ma bëgg xam ñun ñun jigéen ñi lan lañ doon fi Touba 6 000 yi ñuy fayeeku di ñi ak 10 000 fan lañ koy def si Touba sonn nañ maar nañ mënatuñoo génn mënatuñoo sori yére li sëñ bi digle ñun ñëpp ña nga fa. kenn moyut yàlla kenn jaaloowut mais ñun jigéen ñi sunu àq ak sunu yelleef la jooy ñun si Touba amaan sonal nañ ñu li ñuy fayeeku nit ñi fan lañ koy def lii lii nga di ko def jigéen li nga di ko def jigéen pour lan. mi ngi nii du benn du ñaar mi ngi nii sama numéro plainte baa ngi ma nga tege jannatu ba léegi gis nga mi ngi nii ñaan njekk lañ fi nekkee léegi nag xam nga lan lañ bëgg liberté liberté daal lañ bëgg nag sonn nañ ak waa amaan